Moscow mouvement karimiste bu mag bi fête yi premier anniversaire am diirub un an bi nga ko sosee. Euh, di jaajëfal nag mboolem ñi nga xam ne ñëw nañu wuy suñu ci woote bi parce que woote ñu woote yomb na waaye gis ku la wuy si moo jafe te comme ni ñu koy waxee mën nga louer 16 mais mënoo louer nit wax dëgg yàlla kon ñu kontaan trop ci ñi nga xam ne yëpp ñëw nañu wuy suñu ci bis bi nga xamante ne woote nañ ko ñu ñëw wuy suñu. Euh, wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd parce que d'accord ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def mais nga woote ñu wuy si la dafa neex. Euh, bu ma nekkee président organisateur Mascaaw ñoo am réunion mu nekk euh, anniversaire u Mascaaw ñu jëlaat ne dañ koy joxaat mu yóbbu ko Kër Baara ba dama ciy kontaan. ñi woo ñëpp na pour ñu ñëw a ah, ñun ñëpp ñu àndandoo laa liggéey président Karim ndax gis nañu la situation yi nga xam ne moom Sénégal nekkee na ko ah jàpp nañ Karim Wade donc moo ci mën a nii am na ñoo xamee ne buñ reeree duñ dëkki wala suñu añees duñu reer ñu mel noonu nag di dund ci réew mi. di dégg ay milliards yoo xamee ne ñi ñu jiite ci réew bi ñoo ngi ko yor di ko pasar pasare te eggul ci ñoom ñooñu dafa am ab mbootaay boo xamee ne moo war a jug dem tekki leen fan nekk ci yenn soxla ñu leen ciy dimbali moo tax mouvement Maskaw jug ngir social boobu nekk loo xamee da koy jëmmal ci biir ñi nga xamee dañoo nekk ñu ñàkk mouvement bi nag euh, boo xoolee sëñ Moustapha mi leeral na ci ñaari option mu ngi ci ñu ngi ci politique bi ñu ngi ci social bi te boo xoolee fii Touba ñu bëri bëgg nañoo euh, ànd ak euh, président Karim ñu bëgg bëgg nañ wàdd mais xamuñu fi ñuy jaar pour loolu nag moo tax ñun dañoo décentraliser suñu mouvement boo xoolee dañ koo décentraliser ci ñi nga xamante ne sori nañ te bëgg nañoo ñëw bokk ci Karimistes yi wala ñu nekk ci Wadis yi te xamuñu fu ñuy jaar. partout dans la monde mu nekk mas mouvement boo xëy ne wax dëgg yàlla mën naa ni la un an rek la am mais ñëpp xam nañ ko ci àddina bi te ay jàmbaar ñoo fi nekk ay responsable ñoo fi nekk. ñu bëgg ñu engagé wu ñëpp jot. mouvement bii di soutenir seen candidat Karim Wade. déroulé activité yu mag ci wàllub social ak politique ci diwaan bii la présidente di soxna Tahiratu Mbacke moom Serigne Sidi Mbacke Abdoulaye firndeel ko. te bu ñu nee Maskaw dinañu wax ci ay li nga xamante ne si nii Maskaw def na ko ci année bi yëpp loolu la ñu ñëwoon tey pour leeral leen ko mooy euh, bi ñu commencé ak léegi xam ne def nañ ay ay programme li ñu def nag bëri na bëriwul ndax Touba moo bëri ay dafa bëri ay activité trop yoo xamante ne si nii màggal yeeg yooyu yëpp mooy tax li nga bëgg lépp doo ko man ba tax na ci koor gi demoon nañ euh, saam bi ñu demee saam fekk nañ fa ji si la yóbbu woon nañ fa ay ay bagage mën naa ne jarul sax ma koy tudd yóbbu woon nañ fa ay bagage jox leen ko waa ci matification bi la demaatoon nañ euh, ci beneen saam bi ci des saam bi ci ginnaaw saam sëñ Abdou waa demoon nañ fa ànd ak Lota Gaye mu yóbbu woon ñu fa ci ay ay nitam bu ñu demee tamit am na lu ñu fa joxe mais du jar ñu koy wax bu ñu jógee ci loolu tamit ku ne wax ne Touba ne màggal ci màggal Touba bi tamit def nañ fi benn safar boo xamante ne si ni ñu ngi ko defee ci garage daaru ci rond bi mu nekkoon lu am solo moom tamit bi loolu passé dem nañu fi fii ci première garage garage dakaar bi ba fekk fa safoor yi nga xamante ne si ni ñoo lëkkale Mbàkke Touba yi ba ñoom ñëpp ak mën naa ne safoor yi ku ci nekk ak sa soxna ak sa waa kër ñëpp bokk nañ ci mouvement Maskaw loolu mu nekk liggéey bu am solo loolu daal nañ ko fi euh, xañ na nag bëri na bëriwul mais nag euh, ñuy ñaan euh, yàlla li nga xamante ne ni mooy année bii nga xamante ne ni moom la Mascaw di duggaat. anniversaire bii am cachet bu jéggi dayu ndax tey mboolem mouvement bu composé union des karimistes de Mbacké wutewu ko woon benn benn mouvement yëpp def seen ay témoignage ci bis bii. ngeen am ci yéen ju gën a kawe seen njot mu gën a yaatu banqaas yi gën a law ci fépp waxuma ci Sénégal mais fépp ci àdduna. te di mouvement bi bokk ci mouvement yi xam si ni moom la Abdou Karim Wade di gën na bàyyi xel ndax wax dëgg yàlla nekk na lu rafet loo xam si ni am nañ ci mbégte ak contentement. di leen ñaanal daal seen mouvement bi jëm ca kaw ca kanam ci lu baax ñu ànd ko ak uh, yéen ak union des karimistes bépp. kon yàlla nekk seen jillaay te it yàlla ngeen ko feete ay ati ati at. te at mu ñëw maanaam dàq ma jàll te bu nga dee fête déwén incha allah mu fekk Karim nekk président. et exemple bi nga xam ne si moom lañ joxe tey man dafa maa doy te dara xewagul. ñu nekk ay ndaw yu jàmbaare nekk ay ndaw yoo xam ni it maanaam référence lañ ci bépp mouvement ci soppante ak bëggante gi nekk ci seen biir loolu bépp mouvement bu nekk loolu war naa nekk ci yow ndax maskaw ñi ci bokk ñëpp solidarité bi ñu wax. ci seen biir lañ ko njëkkee. yaakaar naa ne kenn ku ci ne ci ñi fi toog bokk na ci li tax nga ñëw fii mooy xeex nguur bi nga xam ne si moom moo fi nekk. fête bi également amit beneen aspect bu nu si ràññee. ndaxte Mame Diarra ndaw mii di membre influent bu Mascaaw nekkoon ci ay tolof-tolof dem sax ba jële woon ay activité moo dellu siwaat moom sax ñu tàmm woon ko comme marraine présence am doonoon fi lu am solo di nuyu aussi nga xam ne moom lañ tuddee bés bi muy Mame Diarra Ndao nekk tamit aussi koo xam ne ku baax la ku amul noonu daal koo xam ne wax dëgg yàlla xolam dafa yaatu mu kum gis dalay def comme boppam. bis bi nag mu am koo xam ne dañ ko ko darajaalee muy euh, soxna maam Diarra Ndaw bi nga xamante ne mooy maam Diarra Ndaw euh, karimiste yaakaar naa ñu nekk fi ñëpp xam nañ ko darajaale gi ne li ko waral mooy dañoo gis ne dañu àndoon moom di liggéey. vraiment mooy def liggéey bu am solo yaakaar naa kuy karimiste ci département bi xam nga maam Diarra Ndaw ci ak disponibilité ak bëgg Karim Wade ak nangoo liggéeyam. anniversaire bi également profité nañ si saytu doxalinu réew mi Khadim Tall moom it bokk si njiitu maskaw yi biral ay kàddoom. parce que buñ ñëwee dañoo am victoire li leen may victoire mooy lan mooy jaay doole dem génne armée bi police gendarmerie teg ko ci kanamu population bi jaay doole forcé moo leen may victoire mais du askan wi parrainage bi amul kenn koo xam ne nekk nga sénégalais koo xam ne da ñëw ni defoo pol defoo defoo dara nga rafetlu ko ñi ko rafetlu ñëpp waa kër Macky Sall la mais amul keneen koo xam ne rafetlu na parrainage kon yaakaar naa bu ñu yuuxoo ne am nañ ndam ndamul gàcce la ndax démb gis nañ ci ensemble ba la fa xew nit ñi koo dajal boo ne koo parrainage bi noo gisee danaan la li ma ci xam rek mooy jaay doole moo tax mu jàll. yaakaar naa ne kenn ku ci ne ci ñi fi toog bokk na ci li tax nga ñëw fii mooy xeex nguur bi nga xam ne si moom moo fi nekk. anniversaire Moscow ñu ngi ko symboliser ak gâteau bi ñuy dagg di firndeel ni ñu ngi amal seen at bu njëkk ginnaaw bi ñu ko sosee soxna tay Tayratu Mbàkke coupé gâteau bi mu doon mbégte ci mbooleem membre ak sympathisant bu Karim Wade bu teewoon fii ci Touba Madiana chez Baraba moom it ñu ràññee ko mu doon membre bu kenn dul natable ci biir carré Messi